ci wàllu ci wàllu xasal yi ma taarix maam Ndiaye. ci wàllu xasal yi baayam ak ak Ahmed Ahmed la ak xasal yi mi ñaari doom doom la la la bàyyi amoon ëpp bi ah maanaam léegi ca ci ca dëkk ba la la la yor léegi gi rek bu fa nekkee dañuy rëcc maanaam bu bu fa nekkee yor dara yor yor bitigam su su fekkee yi day waxtaan su ngoonee mu mu jaar ko ñoom toog toog di dégg ñu waxtaan. ba mu demee nag ba nekk ci tooytaay mu dénk kenn ci su fekkee ne ko ma daal daan daa bëggoon sama ñaay doom yi nga jàppale leen ndax man daal jëngu ma te taxawul ma leen ne ko nag ne ko nag lii laa am ci xaalis mais boo nga jël ko topp tali ci kooku jël ko daal di xalaat ne waaw lii kat xaalis yu bëriwut mënu leen ci taxaw léegi booba ku ñu wax nisaamul mulku ab ab ministre la boo xam ne booba léegi dafa tabax internat da daara internat daara ji mu mag ne mujj na moom ci baxdaat ruy ruy mag ñu ku fay jàng doo fay dara ñoom xasali ñu dugal fa ñoo ñoo xasali ak ak xamit ah ñu ngi ne fa bañ fa nekkee ba mujj teelul xasali yi mujj na jiite école ba ñoom xasali di di di di jàng ñees ki atam ak yaar ci la taalif ci usul fiq imaamul juwéy nii muy imaamul xaram yi li ko tudde imaamul juwéy nii mu doon sëriñam keroog ba xasaal yi génne këram ba mu ne koy waay dafante ni xayyan daa war na bàyyi ba mu jóge fi wallaay nga xam ne sax yow sax ñu ne wax sa am si diggante maa daal fiir am ñaar ñaar fukki at a yaar imaam xasaal yi di di dox ba jataayam ñetti téeméeri boromi kaala yu ñu jàng ba noppi ñoo koy wër ah taxari kon kon kon yow kooku moom yu yu yurutoon dara waaye yu yu yu yu dara moom te te te mujj na doon dara bàyyam ma nga woon di bokk doom ci ginnaaw mag ña mujj doom dafa fis moom ne ci kanam mag ñi sekku mën a ji léegi nag xasaal yi bi bi bi mu doon jàng na ba jàng na ba noppi nag dundam gi dafa am solo si doit day tax si si doit jël ko référence doo jëf xasaal yi jàng na lépp xam-xam yi maanaam nga xam ne Ismaayil yi boobu ñu ngi fi di woote bati daal dafa am bati boo xam ne ñu daal ñu daal seen seen surtout bi ñu daal boo xam ne daal moom léegi dafa làqu kooku nag moom moo xam xam secret Alxuraan sunna lépp moo xam léegi nag am na ay sufara ay ay ambassadeurs yoo xam ne dañ di fal ci biti ñoom lay jokkool waaye bu nga xam ne Alxuraan ci ñoom nga koy jaar falasifa yi ne fa fuqahaa yi nekk fa wala maal kalaam yi nekk fa suufiyaan yi ne fa mu ne waaw mu ne ñëpp ak ak yahudi ak nasaraan yi ñëpp a ngi ci Baxdaad mu ne waaw dëgg moom xanaa genn la ñëpp di gis ne nga dëgg dëgg ma ma yor dëgg genn genn la kon nag oui sëkk mën a ji dut méthodique ci ci tubaab mooy kaliyaar bu ngiru ci wolof kaliyaar boo xam ne da ko daa tegu ci am ngir am fu mu jëm xasaar yi ne daal di ne man jàng naa yëpp mu jàng ko gëstu naa yahudi ak nasaar yi nee na Ismaayil yi xam naa ne daal li ñu wax moom wérut su fekkee moom mu jàng leen fala falasi bi moom bi ñu ñuy falasi bi ne falasi falasi bi kat nee na ba gis ñu wax daal wax yu rëy tudd ay tur ay naan ay naan Socrate Aristote ni mu ay baat yoo xam ne loolu doo war a day rëy léegi nee na man ma ne ko léegi naa ko ko jànge nee na nee na su su ma féexee dem jël seen téere te nekkul woon nee na ma ma ma ma am it rek dafa daan ko bi bi ma jàngee ba ba noppi maanaam di bind si benn benn téere wax damay résumé falsafa ah jàpp si Ibn Sina ak Farabi muy maqaasidul falasifa falasifa yi liñ bëgg a wax mi ngi nii. téere bi nga ko génnee Ibn Hanbal ne ah wax dëgg yow def ngay yow day maanaam léegi yow ni gars yi sax falasifa yi ñoom sax ni ñu leeral si wax wax yi de li leeral wutoon nii yow dañu ko leeral ëpp na di. ndax kon for du du jur fay ay ay mu ne ko ah kay bala ngaa critiquer xam-xam da ngay dem ba tuuti jéem leen mbaa nga toloo ñoom. moom ju juum foofa mu indi benn téere daa bëgg falaasi fa mab nag ma ma mab nag falsafa rek maanaam falsafa bi falsafa bi bi ma ma ci mab mooy falsafa bi bi naan adduna bi xatim la adduna bi dafa yàgg moo mu yàlla ñoomal falsafa bi bi naan comme Ibn Sina da Ibn Sina moom mos naa wax ne kat ginnaaw génn na ci ginnaaw naan kat léegi yàlla buy dekkal du dekkal jëmm ji ndax loolu ñu waxoon ci ci coow la ñu waxoon waaw léegi nag léegi léegi mu mu daal leen nekk dii moom ak ci ci kéfar la daal ne léegi diine mu ne su ko xam ci falsafa diine moom ab yonent ci ci nga xamee waaye nag ab yonent it da nga critiquer ay ay kiyam ay li mu fi indi maanaam balaa nga gëm ay yonent bi faaw nga faaw nga nga ko kulaatu bu buraan ko jox ma firnde ba ba ba jox firnde nag ba nga dugg ci néeg bi léegi da da ngay gëm ba léegi sa sa li doo doo doo dox noonu su mu ñëw ci suyanke yi suyanke yi nee na nee na nee na mooy daan ko noppi xool na ne ne tasawuf moom nekkate xam-xam bi théorie bi ka doyul faaw ma sóobu ma sóobu bi ma sóobu nag aljamaa al amawi ba ba nekk ci Syrie di ma sax mu fa doon dugg xalwa xalwa ba ci lay bind yow olomu diin xalwa bi ci ci day yëg ba ca soroon ba ci kaw mu bëri fa yow olomu diin moom téere bu ne am njëriñ ka xamu ko falsafa ak mantiq ak tasawuf ak fiq lépp ci boole dama kalaam lépp la boyoo te te te ko bindee ci xalwa rek xalwa xam nga ko kon xalwa kon xalwa ñoo xamante xalwa lu muy lu muy firi. xalwa bi. bind fi dañoo bind ko téere moom. ci biir xalwa ba. almakis me daal ci la ko bindee. nee na nag ci laa xa gis dëkk ci xalwa ba ci laa gisee. xam ne léegi tasawuf fay dëkk moom. islam dëgg mooy mooy tasawuf mu ne xam naa ci xam-xam yoo xam ne wala su fekkee xam-xam yi ñu xam. turi xam-xam yi képp. maanaam léegi fukkaay yeeg boo xam ne xëy na xamuñu ko ah léegi nag xel yaalam boobu ca biir xalawam ba ca dañ mu ne mi ngi mu ngi ko sax daan ne koo xam ne duggoo ci tasawuf da ngaa mel ne koo xam ne da da maanaam léegi da ngay nelaw sa xam-xam li nga xam lépp ci ci wérul sa am solo la koo koo koy xasee foofu foofu foofu dafa indi lu am solo mu wane. soo gisee nag awal yi wane la diw dana faat suba nee na xaaral bu suba rek faatu xaaral faatu foofu faatu nga xam ne faatu nee na soo gisee waa joo xamante ne day soppali aw aw yat maanaam léegi gi jaan soppali soppali aw aw xeer wurus nee na nee na nag kooka dama xam ne ah daa am xam-xam bu ko da ko defee soo xamoon def ko nee na nag bu demee nag benn boo ci tegee benn mu jox la ñett balank balank sama xel balank de dégg nga. ki ki soppali wu dañuy wurs soppali li bant bi maanaam naa léegi jaan su su ne ma su ne ma benn teg ci benn mu jox la ñett mu ne ko la kanam lu am solo ko foofu lu am solo ci biir ah. maanaam am xel moom lenn du ko yóbbu. moo tax moo tax moo tax islam lépp luy nëxal am xel dafa war a amal. fuqaay dañ ne alaqlu huwa matti manaatul taklif li ñu wékk togg jëf mooy am xel ku naan am soow kuy kuy nelaw ju julli wër ko kuy nelaw ñoom sunu ko ko ko ko ko ko ko ko xamee ko nga ko ci maanaam léegi ci lu gàtt rek. ci lu gàtt waaw. si ko mën a ji. waaw fi l-Hadara al-Islamiyya al-Ghazali. waaw waaw maa bayna 550 hijriya. waaw mu ne kaana al-Ghazali min akbari ulamaa al-islam fi asrihi. al-luqaba bi. wala hujjatu hujjatul islam. waaw maanaam ci hujja la du ko waral. ndax baloo xam-xam yi jamono bi yëpp mën naa wax ak ñoom ba maanaam ba nargal leen ci yow. wa min wa min asari kutubihi al-munqidh min ad-dalal. waaw. waaw. waaw Xasaali kon aywa. daanaka kaana Xasaali min akbari ulama al-islam fi asrihi. docteur bi hujjatul islam. wa min asari kutubihi al-munqidh min ad-dalal. al-ahdaaf ash-shakk al-mu'aqqat 'inda al-Xasaali.
كان الهدف من الشك عند الغزالي هو عدم الشك بأهداب الحق والسعي لإدراك الحقائق اليقينية مع ما كلفوا هذا من جهد من جهد من جهد واحد. لأن السعي نحو اليقين فطري عند الإنسان فطري عند الإنسان كما في قوله لقد كان لقد كان التعطش إلى ترك حقائق الأمور دأبي وديدني حالتي المستمر يعني من أول أمري من أول أمري وريعان أمري خريصة وفطرة من الله ودعتها في جبلتي يعني طبيعتي لا بخت لا باختياري وحيدتي waaw maanaam moom moom daal dafa dafa xàmmee rek xàmmee di ku dëgg xàmmee rek xam-xam dëggam na دأبي وديدني waaw mooy mooy ay aadaam loolu mooy aadam ديدن فتاي موي mooy aada waaw هاي عادة ci ci ci ci maanaam ci aada yi loo xam ne dafa nekk mu tamakki na nag ci nit daa mel ne taxatus bi mar lay firi.
mar lii am mar mar waaw waaw xam ne daal dafa mar ci mooy daal sayid du duna Ibrahima Khalil inni say saahibun yarabi sayidini loolu la loolu la waaw asbaabu shakk almanhaji inda alxazali. bada alxazali ashakku mundu siba. hina nasra ila umuri alxayaati. nasratan taxliliya. amiqa baarisan an mabaadiha alula wa xilaliha albaida.
maanaam léegi moom bi mu nekkee ndaw tàmbali naa xool di xel yaar luy lii ndig daal ni ni mel ni fa fan la jëm waaye nit moom maanaam daal war naa am am na lu ko fi indi am na lu ko fi war am na fu mu jëm loolu nag loolu nag question la yoo xam ne ni ku nekk da nga ko war a tontu tontu sa sa sa bopp gëstu ba xam ne am na ku la fi indi am na lu la fi war am nga foo foo jëm ku ko ku ko tuddul ku muy ñetti ku ko ku ko tuddul maanaam mu jëm jëm fenn
laasa an al abna waaw. waaw yuladuuna Hmm.
ala diini abaihim.
maanaam maanaam maanaam li mu njëkk a xawle mooy nekk diggante nit ñi kat ñoom kat ku ku ku judd rek Fasabaay doon loolu rek kay doon.
fasabaay doon waaw.
kon kon kon kon kon fi fii dana dana dem ba ne kon comme 18 ans ku ne war ngaa vérifié waat ba xam sa sama ak sama am la ko ndax ndax ndax dëgg la ndax mën naa ba dëgg dëgg xaw na ko. xoolu kat abawum day xaw seen ci waay ngi tudd. mën naa bàyyi rek maam bi xamuñ dara dara da da da ngaa si fekk lu solo ci am ba aw yoon rek.
nga ànd ak mbooloo mbooloo ma mbooloo ma bari su soo laajoon ke ke ke ci kanam mooy mooy mën a xamu ko waaw.
fatasaala limaza yaqbalu di annaasa foofu si ñu daan fa fa jultu baynal wala maa wal awliyaa bi bi ñuy it yi wa wa wa amali wa xawliyaa. xëy na yéen yaa umri itaaw ba maanaam da da doon dox rek noonu ngir bañ kat su su su ma dund gi maanaam doon mali foro. muy wër dëgg waaw.
فتساءل نعم.
ما سيقبل الناس على الامور والحقائق على انه مسلمات يقينيه لا شك فيها موروثه waaw waaw maanaam lé- léegi lu du tax tey xaw xam nga fi mu toll tey tey daa koy koy wax gone yi may leen keer laa wax keer may leen man de am naa fulla su ma xam ne Sëriñ Bamba mii du dëgg ma ma gëli am naa fulla génn ci am naa fulla wéet wéet wéet wéet ndax kat àllaaxira kenn dafa yóbbu ak defe waaw defe borom lu wax ku toog gu- defe ku neen àllaaxira moom kenn yóbbu loolu waaw yóbbu loolu دون ان يقبلوا على اساس من الاجل والبراهين العقليه waaw xam nga bi doon yow ab sëriñ sëriñ boo xamul dara sëriñ boo xam ne ab badi la sëriñ lu lu koy nit doyee wax lu koy doyee بدي لا أبدأ.
bandi bandi bandi Ah.
sëriñu bandi sëriñu jaahil ah së- së- sëriñ bi lu koy doyee ah si la si la wax wala tusaahib gayra man bihi tusaad diinan wa aqlan abadan tam tam tamaat loolu yokku dina ba xel sani ko oh dara la الله من حينما نضج حق حق له حقله اراد ان يعرف الحقيقه
nu ci nu nu nu nu nu jàq lii mooy nga nga dem nag sa xel mi ñoroon nag ci am bagage ay bagage xam nga xam nga ne xam nga xam nga noonu noonu noonu maanaam noonu pro suñu problème mu Tuubaa gi Bawol gi maanaam noonu dañoo amul bagage yi ñu mën a xaatee surtout waa jàpp na man tex parce que loolu jàpp na ko de yow ba bagage yi amoo ko loolu su lay xaat te te di xool rek asamaan si yaatu na lu lu yor asamaan si mooy lan man daal ma judd ba rek maa ngi gis mu yaatu rek foofu foofu fi nga mën a yem di ah di di di ma maanaam projet bi dañ amul procès sëñ Tuubaa tubaab yi bi bi ñu xoolee xooloo mun ñu ko yàqal dañ ko wër daw ko sa bopp rek incha allah dañuy wër ba xam ne yow doo fi mën dara yow sëñ Tuubaa du fi mën dara rek su su bindee téere yi ci arab ngir bëgg mu continuer ñu ne wax kenn du jàng waaw su su daay jàngee mu ne bagage yi ñu ko déggee ni ngeen du du am bismillah bismillah فشك في جميع الحقائق المتعارف عليها والتي حصل عليها تولايته وبدا يقتس- يت- يت- يتقصى بنفسه أن taxa يحقق- taxa taxassi muy gëstu gu xóot waaw lu- lii ma fekk nii mën naa bëri man dëgg kon man léegi naa am kóolute si sa saabu mu yor ma ci ne ma lii dëgër na ma xam ma xam saabu bu ma kenn ma dëgër يعني لكي يتوصل بجهده waaw الى اليقين ويصبح ايمانه بالاسلام قائما على الاقتناع الذاتي maanaam suñu tubaab la nu nga ko waxee ci ci masalik ba muy wax ca ca ca fikra naa léegi ndax nga am gëmug Sayyiduna Ibrahima ga ngëmum nga ci da ko teg ci ci ci ay ay cëslaay
وليس على وراثه من من الوالدين
di doon ah yaa yaa yaa dégg ko dégg ko dégg ko dégg ko dégg ko dégg ko maa maa sa sa sa maa fekk ci si tool bi di di garu di garu di garu di garu di di maa si sëñ sëñ sëñ Tuubaa lu may jëriñ lan la lu lu lu tax ma war a dem ci moom raw raw xaane sëñ Tuubaa dafa war a am jëriñ ma dem ci moom soo mu jëriñ du du du ma ci dem su ma ci demee ba nag bii dina ma ah am am njëriñ ma dikk ndax gi war a géej gi ah ndax ma jën ma jën la jën جل يوسف ah ndax amuñ fi bu ne ko ma dem man doo doo doo fi toog bi dañ fi ëpp sëriñ boo xam ne mën na loola dara du la jëriñ si raw nga ne fay nag ba ba ba màggat ba jeexal dem ba sàq yàlla ne la loola def nga ne ma ma sëñ bi mooy loolu mooy loolu luñ koy xanaa xanaa amu xew suñu boom dara fonk ba du la teg ak jaamu yàlla fekk amu xel
مجال الشك الواقع عند الغزالي الجانب السلبي waaw te te te daam fa solo solo ma ñaan di nga xam ne ne yow ca càmmoñam
خمن يا موي لول واو كون الشك في الحواس افترض الغزالي ان اليقين المنشود م- موجود في الحواس ومدرك- ومدركاتها ولكنه اختبر الحواس ووجدها مليئة بالمخالطة والأخطاء المن... المنا... الم- المنافية لليقين فالكواكب يبدو لنا في حجم دينار وفي الواقع أكبر من الأرض ولذا يجب ربط هذه المدرسات وطرحها جانبا gën jant bi la xool jant bi gis na jant bi day day mel ne mën a nga nga ci ngëpp te war xam xam xam yi neeñu maanaam naa léegi ruy ma lool ndax bu doon omiskit la yoroon omiskit képp do- dox ba nee dox ci seen yi ah kon bu doon omiskit ah kon juróom maanaam na nga jur ci bari yi ñu mën ci mën soree foofu foofu nga fi jël kon kon ëpp na ko nit ki bu bu ñëw fii si kanam day day sori lu mu gën a jege gën a rëy kon kon léegi li li ma bët bi wax wirut
la la la seen li ñu waxoon ne ci ci xawaas bi moom c'est mu gëstu ko ma xam ne wér.
xam nga àdda yi xam nga xam nga xam nga chambre de marché li ci dox lépp moom mooy loolu maanaam léegi sëñ bu sëñ bu sol ay bassin parfum yu neex si miski yor si si si su neex a neex kur ci kur rafet maanaam ñun ko sëñ la mu jeex mu jeex déet loolu dara di moom demal jëndi ko yow man man bu dee loolu mooy ma dem jëndi ko ah loolu jënd lee lu jënd la moom jënd la wax الثانيا الشك في الحق waaw إن أولي di def foofu taxaw di fi fi ñu doon nii miski bi ah yëkkati seen ci kaw maanaam fi ñu doon lu man su may julli ma allahu akbar ci ci ci war a wax ci kaw si si Sëñ Tuubaa nee na su- ma nga ci ma ma nga ci tasawur subaan boo boo boo boo demee ci àll ba di ba di noddo su ëllëgee àll bépp lay seereel ëllëg da ngay jooru ci kaw allahu akbar ñëpp digg la picc yooyu yëpp nekkoon am na am na jaamu yàlla bu bu bu dee bi suuf si di ko wax maanaam ngelaw li bant ya garab ya lépp di wax ngay ñin yow na doom na dugay bi mu njëkkee dégg sa sa sa baay bi mu njëkkee dégg mu dem ah ah ci baay fi ne fajar gi léeg-léeg da da daan nottal ca kaw ah sëñ bi sëñ bi sëñ bi sëñ bi ah ngoog ngoog kon إن أولي إن أولياء الحق مثل waaw قول- waaw مثل قولنا الحق أكبر من الثلاثة ngoog والنفي والإثبات لا يجتمعان في شيء واحد waaw ma- ma- maanaam kat bu ñu ne la benn moo ëpp ñaar lankal ah bu ñu ne la dàq ak saxal benn la danaa ñëw duma ñëw lépp benn la ne loolu mu nekk ku la ko mën di wax lu mu réeréy kaalaat lankal xam nga xam nga fii fi mu tàmbalee neex yow lim nga lim nga ab yonte bu taxoon fi ne yonte laa ba nga gëm ko mu ni gis naa ah benn de moo moo ëpp ñaar nga ko suñu bi déet ma ma ngi dem
هذه ما أدري من.
هذه الأوليات قد قد تقتل awliyaat mooy li nga xam ne maanaam yàlla da ko mën yow da koy xam.
waaw waaye xel mi dafa am loo xam ne ay loi yoo xam ne ñëpp ko xam bokk. waaw loolu mooy awliyaat moom loolu moom mooy mooy awliyaat waaw waaw waaw.
mu ne xad taqtulu ba baada ayn wa tasharu baada fatra min zaman mu ne قد تقتل waaw haadihi awliyaat qad taqtulu bari ngeen war wax si فقد فقد تشهر نعم.
فترة من الزمن waaw. du soobu آه، آه، قوة أعلى وأبعد من الحق
maanaam léegi فقد تشهر والخلالة
maanaam tey lii lii li ngay xam nii nag da nga dem ba càgg nag nga xam lu ko ëpp loolu moom ma ma ma nga ca basiñ ca ba duggee xalwa léegi xam na loo xam ne xel xamu ko ne ne قد تقتل لا su tëb ci lu xa xa xa xa tab tulu da da waaw wa wa wa xat solo léegi mu ne nit ki maanaam léegi gi su soo demee ba ba yàlla ubbi la bunt yi day mel ne dagaan nekkoon ci ci ay nelaw waaw loolu loolu loolu moom basi la basi la basi la من تثبت خطأ خطأ الشقة في العقل وأولياته الأساسية mu ne waaw kay waaw maanaam su boobaa su lee su su Bachira loolu loolu mooy Bachira Bachira su Bachira xam nga su tradition ñoom da dañuy wax ci ci ci ci xat bi sax moo tax sax gars yi ba naan ah mu daal waxu dara soob lay wax moom li li li ko feeñu ne xel mi kat li muy jàmbaar jàmbaar am na lu ko gën a kawe loolu loola mooy Bachira waaw. aywa هذا هذا على لسان الحواس waaw waaw.
والتي maanaam maanaam maanaam léeg-léeg ci ci xawaas bi ginnaaw dina yàlla li may xam léeg-léeg mu am lu lu lu lu lu ndax yooyu waaye nag Bachir mu bu dikkee day gis leen waaw.
من والتي تخيل خزالي أنه wala si.
تخيل تخيل الخزالي أنه تقاتله بعد أن شك فيها خائنا لقد كنت تثق بي من قبل إلا أن جاءك الحق وجعلك تكسبني waaw.
فمن يدري فمن يدريك أن هناك قوة أكبر من عقله قد يأتي عليها waaw maanaam léegi xawaas yi dafa xam xawaas yi xanaa ni gëmuñu ko man ku ne boo doon dox da nga xam ne lépp kaftu yàlla rangam waaye mu dama càgg na gis ne kat léegi xawaas yi li muy maanaam yëg yëg yi li muy wax maanaam wiru ndax ginnaaw su ma xoolee ci des yaakaar ne aw misil ne ne ëpp na ko léegi léegi nag xel nag moom ay la waam dafa nekk lu taxaw moom xel bu ne la benn moo gën a néew ñaar ëpp tukki du- moom du du du sens kon moom léegi moo gën a wóor kon maanaam lan maanaam yëg yëg yëg cee dal nag ci ci Ibrahima xaata ak bëru jëp ak lu lu lu waxoon ci ci ci Ibrahima lu lu waxoon ba mu ba mu gisee ba mu ba mu gisee jant ba dé ba mu gisee weer wa
بمنان بمنان هذا أكبر فلما بل خال خال إني برن من maanaam خال يعني إني إني برن ما تزكون إني وجهت له waaw ba weer wa ba mu gisee weer wa dana yii ci kii moom xanaa kon moom mu gën a kii هذا أكبر فلما فلما فلما فلما قال بعد قال هذا ربي هذا أكبر
léeg-léeg kon moom ci weer bi la la jëkk gis ne dafa taaru yekk xam nga àll bi booba day leer naa ñun dafa loolu mu ne addi ba mu suuxee mu ne lii kat kon kon kon kon du kenn mu ñëw ci jant ba jant ba gën a gën a yaatu moo gën a rëy moo gën a rafet moo gën a leeral ah ba ba jant ba suu suuxee mu ne déet kon kon kii mu ne kon nag léegi nag kat kon indi saa woon ci ceeru bi xasaal yi bi mu xa xaliyaaree ci ci yëg-yëg yi benn ngoog mu mooy weer bi. mu mu mu gis ne li li ko xa li ko yuy di wax wérut ndax jant bi nee na ko comme miskit la xam ne du du miskit tolluñu miskit mu ñëw ci ci ci xel mi. xel xel mi moom it day dem ba gis ne kat xel mi moom it am na leneen loo xam ne bu soo su man mën naa am su fekkatoon da da da dana dana ko dana ko gën a leer gën gën gën koo ci kawe. loola la nag mooy ñe- ñetteelu ma ma xale bi ba mu fenkatee la gis ne ne kon mu te mooy Bachira moo gën a wóor gën a yaatu xel. ايوه من أقول شكو أن أكبر من هذا قد يأتي عليها وتثبت لك خطأ شقتك من حقها واو من وعدم وضوء هذه القوى الآن لا يعني عدم وجودها قد تظهر بعد رده من الزمن
رده المؤبدية واو ف- ف- فيثبت حينئذ خطأ شقته بالعقل وأولوياته الأساسية waaw maanaam maanaam teewul nag teewul nag su Basiru ubbi ko it teewul xasaal yi xam ne benn moom mënut a mënut a ëpp ëpp ñaar waaye day xam ne nag beneen buntu ubbi waat na boo xam ne moo moo gën a ne yaatu buntu bi bi bi bi ma doon xool. aywa ci topp waaw ñu ñëwal ولا waaw في الحياة الشعورية عامة إن إن الحياة قد تكون مجرد وهم وخيال فنحن نحلم كثيرا ونعتقد أثناء الحلم أن ما نراه حقيقة واقعية ثم نستيقظ ونعلم أن ما حسناه كان وهما ويؤكد ويؤكد ذلك بقوله أما تراك تتخيل في النوم أمورا وأحوالا أن تجد لها ثباتا واستقرارا ولا تسكن في تلك الحالة فيها ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع تغيراتك أصول أصول وطايل maanaam tayil mu tayil tayil mo- mooy neen daal neen la du mu mu doon tayil bu amul te tayil mo- mooy loo xam ne neen la maanaam léegi xam-xam bi ci xam ci teg ko ci yëg-yëg yi ak xel mi da ne day mel ne kuy ñaw rek da da da ngay nelaw di gént gi gis ay ay tabax am nga kër gu baax fee am nga oto bu baax fale am nga kondo banque nangam am nga ceeb bu nga tiim ceeb bi di lekk di lekk ba suur suur ci suur ci gént ci gént gi dara su wala su tëdd nelaw fi da ngaa ne xefeer da gisoo dara mu ne mu ne loolu yëpp na kon mën naa ndur loolu
waaw Descartes moom it de- wax na lu mel nii waaw waaw waaw ok benn benn kay benn la waaw waaw waaw انتقال الغزالي من الشك الى اليقين والايمان واو.
الجاري بالايجابي waaw استمر الشك الغزالي لمده شهرين انتقل بعدهما الى اليقين ومر الغزالي في طريقه لليقين بثلاث خطوات وهي waaw maanaam nag moom duggee ca ca xaloo ba xaloo ba ba mu jeexee ci maanaam ca ci tur bi xaloo ba kon ñaari weer la rek mu wax ñaari weer ca ca xaloo ba rek ca la nag daal di gis dëgg nag yàlla daal di dara ko wax yàlla tànn ci moom ak leer boo xam ne ci la xamante nag dëgg nag waaw waaw aywa ñett ñett la koy dem almujahid asufia wa tawhaja annuur taw taw xuj wa tawhuj taw taw xuj mu tawhuj النور Cinq.
لله في القلب واو.
وتوهج واو.
waaw aywa عندما بدا يعاني من الشك Mm.
سارها الى الاعتكاف والصمد في الحياه Mm.
وظل يمارس مجاهدته suudu bi xasaal yi dafa jékki-jékki ca daraja jooju mu jiite woon daa xëy xëy daal ne daal di ne waaye xool naa waaye xool samay xam-xam bi yëpp gis naa ne bëgg na doon do do dog la woon bëgg na waaw mbooloo mi mu wër nii du bëgg a dëgg bëgg la léegi xool naa sama dund gépp ndekete maanaam jiwuma ci lenn ngir ngir yàlla foofu lu am solo la ni mu siiwee mbooloo mi wër ko muy lépp léegi lépp sero la defoon tànk lépp sero la amul njëriñ léegi ah ko kon kon nag te man xam naa kat kat kat àllaaxira jéem a jëm maanaam léegi nit nit ñi amul ñu fa jëriñ ko ko naaju léegi daal di ne daal di daal di démissionné démissionné ci ci fi fi doon jàngale man jàngatuma lé ci ci ci ci léegi ci ci ci léegi alal ji mu yoroon ñëpp amoon na alal ju bëri mu saraxe lépp mu mujj di di sol mbuum bay bal mujj li muy dundee mooy maanaam léegi ku ku bëgg a bind leetar mu bind leetar ci nga fay ko dara loolu lay dundee. gaa yi naan gaa yi naan day asaaba si si xanaa yaa ngi noonu ma dafa kii dafa gi da koo jàpp xanaa. ma doo jàpp asaaba.
see see xanaa yaa ngi noonu. na ah léegi luy li kii ni mu meloon xëy xëy xëy maanaam mel na doon suwaanke yaay alal jëpp nag taw mu sarax ko foofu nag dama leen ne lu am solo la ci borom xam-xam yi xam ne yow sa dund jëpp sero la lenn la ngi yàlla mut foofu nag la suñu duwaa xidma ay ñëwee xidma suñu duwaa fexe ba yow fëlsal bii ngay jàng nga nga nga mel ni ku julli jigéen ji di yàkki sawaani ba mel ni ne ku julli kay nekk Macky Sall ma nekk ci biir palem ba mel ni ku julli loolu m- mooy sa yëngu bépp xilaafa gi xilaafa Abdoulaye Wade yi mooy bépp yëngu booy yëngu nga bàyyi ci xel ne yaa yàlla fa waroon nekk moom yàlla moo waroon nekk nekk ku tonn bay yàlla moo doon amee médecin moo war a nekk jàngalekat moo war a do- doon a- am maçon yàlla war def yàlla ma ko def ndax moom mooy dinam léegi nag yàlla ne ma kat yow nooru nekkal ma ci daara ji ah lé- lé- léegi yow nurgol yàlla jëm yàlla ci sadija moom moo tegal ah ko- kon nag nguur nag gu- da ngay war a góorgóorlu lu gën a góorgóorlu xeeb ko lé- léegi nag loolu moo ko- moo gënoon na gaaw fopp nag nooru ñu ci ci nga jàpp ne julli képp ay jëf jaam bu yàlla kon nee na nag lay tax wax ci bopp
kon ñoo ngi woon ci almujahid asufia wa توهج النور لله في قلبي عندما بدا يعاني من الشك سارها الى الاحتكاف والصمد في الحياه وظل يمارس مجاهدته الصوفيه طوال مده احتكافه حتى وصل الى مرحله حليا من الكشف ساعدت- ساعد- ساعدته على ان يقصف الله في قلبه نور اليقين على ان يقصف الله في قلبه نور اليقين واصبح مكشوفا عنه الحجاب ليدرك بهذا النور لله كل الحقائق اليقينية maanaam loolu loolu boo demee ci Descartes xart la wax xart te Descartes moom loolu mu ngi koy tuddee xart jékki-jékki maanaam yëf yi leer ko lim lim lim doon wër waaw maanaam mu mu mu leer ko kii mooy moom it noonu la dem ba ba ba si am ubbi ko da nga cee da nga ci seetluwaat lu am solo suñ tubaab bi mu nekkee fii ci Touba yan doomi sëñ mu lay nelaw na sax de nelaw na rahimahullah sama fari tur moo moo ko doon nettali moo ma dikk ko ci moom na sëñ mu lay nee na maanaam suñ tubaab bi nekkee fii ci maanaam jumaa ji nekk nekk fa ak mbooloo mu fa nekkoon sëñ moo jaar nañ dégg ko wax bël boobu ne ko maanaam naa dikk nag ma xamtul foofu mu jaar ab bël boo xam ne suñ bi nga romb bël bi suñ bi jaaree mu fees ko feneen feneen ñoo xam ne nii maanaam nga xamante ne da danañ ko xàmme su moo jaaree indi fi nag am mbooloo nee na ñenn ñooñu ba ndikkee fekkoon nañ ñooñu ñoom su guddee seen ruu yi day jëmbal diggante asamaan suuf te te xam li xew day jë jë jëmbeelu. jëmbeelu mooy ah di wër. di wër jëmbeelu ni ni ni picc de picc. mooy jëmbeelu def nii noonu. nee na nee di jëmbeelu di te asamaan suuf.
ñooñu ko leen ba doon si Mor Diarra.
déedéet déedéet mooy ñi nga xam ne ñoo ñoo fa si Mor Diarra indi fekk nañu fa.
waaw waaw waaw.
jaxasoo gi lay lay lay fi jaxasoo gi.
waaw waaw mu mu ne ñoom booba mën nañu loolu. bi mbooloo mi dikk nag. mbooloo mbay mi dikk nag. nee na nee na kat mën a tuñ loola waaw. waaye nag waaye nag lañ doon xam ni ñu ko xam ñettikaas gii lay wax kon njëriñ bi njëriñ bi waaw beru bi.
bu nekk moom bu nekk moom xaloo moom bu nekk waaw bu nekk waaw waaw waaw waaw mu topp ñu ne Saniyel. alxad alxadisu alxalbi.
waaw lil xaqaayiq al yaqiniya.
waaw xasta xasta boobu mooy basi basira bi ubbiku xam-xam yi tàmbalee ron mu ne inna noor al ilahi yusahidu al xalba ala xadis al xaqaayiq al yaqiniya allati tujisu xawaasuna xawaasuna wa uquluna an idrakiha xam nga هناك حقائق أعلى من الحق البشري ولا ولا تدركها إلا إلا من إلا من تصور waaw xa ilaa manta تصوف déedéet daal maanaam maanaam maanaam léegi wala si na jaahadu fii naa lanahdiyannahum subulanaa قل إلا من جاهد loolu loolu la mujaahada rek la maanaam sax ki nga xam ne sax gëmul yàlla sax waaye ma ngay mujaahada ca ca ca ca xunt ya faaw mu faaw mu xam dara waaw xabaar yu ne nekk ci àll bi xam ne ñoom sax yëruñu di diine saxe maa gëm nañu yàlla waaye nag xamuñu diine yi yi waaye daal ña fa ne daal di wéete nga xalaat suñu boobu da leen da da leen fay fekk waaw be- benn séréer ne newoon na ma maa li ñuy wax ay xam nii pangul pangul la tudd pangul nee na nee na daa am waajoo xam ne da doon wër ay nagam nagam yi réer ko mu wër ko ba sonn nee na nag nee na nag for tëdd nag ci ci ron ak garab dafa nelaw ba mu yeewoo gi gis nag na na nag wër ko léegi xo- léegi nag mu bëgg a sant nag léegi mu mu léegi mu am soow indi ko sotti ko ci garab gi di ko sant ndax daal ga- ga- garab gi mu tëdd daal yeewoo nagam yi ñëw for kon kon Pëppël moo tudd pangul wala di di di bant boobu ma bant boobu ñu ñu ñu sotti dina am soow tudd pangul loolu loolu loolu la mu mu mu ne ma xam lu lu lu ko di kon kon waa ji kon moom léegi léegi am na lu ma xam ne am na te xamut loola anam léegi nag mu koy misaal nag ci garab gi waaw waaw.
Ah, boo tàmbalee woon.
waaw maanaam kon kii mu mu jaay doom képp ku ku ko def ku sonn am dara. sonn am dara ثالثا waaw حوزة الثقة واليقين waaw فيما كان موضوع الشك السابق waaw آه، عادت طمأنينة للغزالي بعد أن توصل tawassala أن توصل بواسطة النور الإلهي والحدث القلبي إلى اليقين المنشور foofu foofu xasee li ko wax am solo. ala ala nuur samaawaati wal ard nee na nee na yàlla mooy leer gi nga xam ne xam nga day dañ ne bët mënut a gis ci lu may ci ci ak leer bët du gis ci lu may leer léegi nag xasee yi nag leer googu nga xam ne mooy tax nit mën a xam dëkk mooy leer yàlla gi. li afaman sara law saddahu lil islam ki loolu la képp koo xam ne yàlla moo moo ne tay lampam ci ci sa kanam da da nga gis dëgg waaw fo fo fo foofu nag lu am solo amaat xalaat kon nag yërëmaat xalaat ñu kon soo gisee koo xam ne gë gëmul mu yàlla da ko da nga ko war a yërëm yow. loolu loolu koo gañu de. do ab dogal la. do dogal baax. xam nga foofu it foofu foofu foofu it tolérance nga ko.
tolérance ki ki ki nga xam ne dikkul ci islam. yow da nga ko yërëm yow. xam nga do dogal baax de. ndax amoo amoo mu jiite amoo xel moo tax du ci islam. kii la gën a cadré ci lépp. ba noppi mu amul islam. kon kon kon dogal baax.
sant yàlla wallaay sant yàlla sant yàlla waaw.
wa xam xam nga sëñ Tuubaa mii sëñ sëñ sëñ Tuubaa mii ay kàngam a ngi fii ci biir réew mi ñoo xam ne dañ ci diir lañ ñu xam dara lool sëñ sëñ Aliou Touré suñ soxla nee suñ suñ bëccëg dafa laaj sëñ sëñ Aliou Touré ne ko waaw sëñ Aliou yow ni nga baaxee lu tax ñëwoo ci wuy si mu ne ko ah yow yow de ne kon yow man xeeb naa la yow sëñ Aliou kum ko wax sëñ wu sëñ wusiru ne ne ko man xeeb naa la de waaw jot jot naa ne ne ne sa xam-xam coomo na na na foofu ne ko ne ko sëñ bi wuti wut daa tànn su wote woon ma ma wu si oh loolu loolu kon loolu kon ah ah cër la cër la cër la cër la cër la
wa wa sufiya min waaw.
maradi min min maradi shak waaw waaw waaw ngay ngay rek saafara nañ ko xel yàlla ga waaw wa tayaxana min wujudillahi waaw.
wa wujudihi Mm.
huwa nafsu waaw wujud al-alam al-khariji Mm.
لأن اليقين يقين بوجود الله Mm.
يجعل الإنسان متيقنا Mm.
من ساعة معلوقات الله ويجعل النور الإلهي والحدث Mm.
القلبي Mm.
وسائل Mm.
يقينية لإدراك الحقائق الوجود التي كانت موضوع الشك السابق على توجد اليقين الإلهي.
së sëñ Tuubaa nag moom fii fii sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa da da da dafa def leneen saa yi dafa def sakku mën a ji. dama dama dama dama dama dama d'accord sëñ Tuubaa moom deful sakku mën a ji moom moom daa def taqiqul mën a ji waaw mooy moom la ñu tuddee justification méthodique te terme bi moom ma maa ko teg maa teg français bi ma ma ma teg maa teg arab bi Taqiqul ah tax ko mën a ji waaw.
ndax man damaa jàngat xasaar yi jàngat ko jàngat te dama dama jàngat jàng Sëñ Tuubaa ndekete woo man ci xasaar yi laa koy jàngee téegu ma ko benn bis moom ma jóge Njaaréem ba ba ba jub si so sotti bi nii di dugg Tuubaa sama xel ne ma ah yow kat yow Moussa léegi yow Sëñ Tuubaa yow yaa ngi ko doon jàngee ci xasaar yi jàngee woo ko ci moom. ki sene ko moom laaj ko laaj laaj ko moom.
waaw.
da da dara sëñ Sam Mbaye ci li dafa takk mën a ji. dégg dum naa sëkk mën a ji. ma ne ci misaal mooy sëñ Tuubaa ba jom minul bàkkat yim sëñ Bisiru maanaan sëñ Tuubaa ba mu àndee ak sëñ affaire la wax de sëñ affaire Mbakke yaakaar wax si affaire waaw.
ci ci ci ci maanaam léegi keroog Samba Sadio ñu ngi nekk di di sarlu ja maanaam ak garab ci àll bi ne ko daa mel ne man de fi doon maa nga Samba Sadio maanaam gars yi di ruufaloo
mel na moom sëñ bi.
sëñ bi sëñ bi fi mu nekk ci àll bi mu ne si àll bi kat fi suñu tollee ma ma maa ngi mel ne ku nekk sa Samba Sadio ci xale ba maanaam teew gis teew ñu fii te te te te booba xamaguñ ci moom dara kooku kon mënta nekk mu mu mu mënta aw ko ci xel bi.
nga daal di xelal.
moom it na ko leer nañ moom. ma ne Sëñ Tuubaa xam nga loolu lu mu defal daa ñëw ginnaaw bëgg yeesal moom fekk na fi yu baax yii mu ne yu baax yi day dëgg la waaye dama bëgg a vérifier nag maanaam léegi baax ga dëgg fu mu ne loolu mooy taqiq.
takk almanhaj yi justification taqiq ji am naa ji.
di almanhaj yi almanhaj ji waaw.
léegi nag moom ci tubaab mooy justification méthodique si si si si kon ma ne si doxee doxee na ma mooy doxiinu Seydina Ibrahima. ab yonent ku ne xam na ne ab yonent ku ne xam na ne du doxali yàlla. sabbi arina kayfa tuhil mawtiya qala awalam tu'min qala bala gëm naa kay walakin yitmin qalbi it ma nag do dong dong la la naan rek la bëgg naa.
dafa dafa dafa bëgg xa- xel may daal ak it suy wax nit ñi man leen a wax ci wax dara ci tubaab en en tant que muy mu mujj dit dafa war a jaar fépp ba xam la fa nekk ba su koy wax ñu nangal ko de xa ah daal ji di jaar na fa waaw da da dafa de kon nanga ma fa nekk nga wax ko ko dem sëñ bi ko wax ndax jaar na fa xam na ko.
waaw kii foofu la xabaar yi yem de. foofu la yem kay xabaar yi mu doon wax.
xasal yi moom ku am maanaam naa la ci ci ci noonu maanaam ba man fi fi doon fii dama ko noonu ku soppili ab bant jaar soppali aw aw bi wurus su ma waxee lu yuruma ma lank
maanaam nit ah